ñoom ñoo ko xam bi muy tàmbali di wax dafa ne séparation des pouvoirs bu leen arrangé ñu wax ko bu leen arrangé wul ñu tuddaat ñu tuddaat xaaral xaaral xaaral yéen a ngi rapport bi ngeen jot rapport bi ngeen jot bi ñu leen jox ah. ñu ngi ciy dugal photo ay prostituées yoo xamante ni ay nigérian lañ si c'est 15 documents c'est xamoo da laaj député yi leen yi ngeen àndal mais mënoo ko xam tu ne savoir. li ma lay wax nii le député tu ne peux savoir on a 15 documents a reçu mënoo ko xam. Abdou yuuxu mënta nëbb dëgg. non dama lay wax mais mënoo ko xam yuuxu non yuuxu ma de dama ne mënoo xam li ñu jot. 15 documents la sa collègue sa collègue. oui Abdou Bara Mbacké Dolly. nekkul ci commission ad hoc bi. waaw déglul bokkul ci commission ad hoc bi. bokkul bureau bokkul conférence des présidents député la mais bokkul conférence des présidents fa lañ génn documents yi ak réunion de bokkul commission ad hoc. donc lu ma la ci rek moo wax la. waaw non rek dalal rek ma wax la. waxal ma ñeneen. Abdou baara Mbacké Dolly moo génne Pape nga ñëpp gis nañ mu taxaw ak ci presse bi. ne leen ñoom dañ leen wan ci presse bi ne leen kii nii mooy Adji Sarr wane ko ci ci presse bi maanaam. document yañ leen jox sax te te maître wax na ko sànq ci procès verbaux yi. ci procès voilà ci procès loolu moo ci nekk. moom moo ci nekk mais photo yooyu. présenté salon de massage bi. salon de bi tamit may waxaat ni ci procès verbaux yooyu noonu dañ dem jëli salon de massage yoo xamante ni seeni mbir dara leeru ci ñu ñëw ne kii lii mooy. salon de massage adresse bokkul quoi adresse yi bokkul. ma ci procès verbal te ñu dégg te ñu dégg ndaw si ne moom pour ba ñu koy enquête ci vérification da leen jox même accès page Facebook am. daf leen ko jox pour ñu xam ne la muy def ak la ñu dugal ci dossier bi parce que mooy liñ ko toppee tey ndax tey dafa wuy ji juge d'instruction mu jël ko mettre ko sous contrôle judiciaire pour lan proxénétisme ak complicité de vol proxénétisme mooy lan mooy li nga xam ni ñoom jàpp nañ ni moom lañ dugal ci dossier bi koo xamante ni nag wan na la ba wan la ay page Facebook am yi muy liggéeyee donc kon kooku nëbbatu la dara te loolu loolu mais dossier dossier dossier bi ñu bi ñu bi ñu levé li tax ñu jël ko waroon ko jox député yi président bi ne ñëw leen sama bureau ngeen consulté ko ñuy évoqué lan secret de l' instruction ñoom instruire wuñ de parce que mooy li ma la wax ñoom bu ñu jugee ne séparation des pouvoirs bu leen arrangé bu leen arrangé wul ñu ñu ñu waxaat leneen parce que ñoom dans kon nangu na ni ñoom dañuy def instruction ndax bu fekkee ni dañu évoqué secret de l' instruction. mais kon dañuy def instruction kon nag article 44 règlement intérieur assemblée boobu noonu. secret délibération la ñu déglu ma ab délibération. waaw dama wax rek li li ñuy liggéey yow tamit. dama li ngeen liggéey xam naa waaw waxuñu noonu xamoo ko. kat dama dégg yow yaa ñëw yàlla yow xam nga li ngeen yow nga gëm yàlla. <laughs> non quand yow nga <laughs> gëm yàlla. quand même xamoo li ñuy ma ne. assemblée ah li ngeen fay doxal ci dossier bii sénégalais yëpp ko xam ah ndax say collègues député ñuy génn di wax ñëpp gis ko ah da ngeen dàq presse bi ñëpp li ngeen def mais teewul askanu senegal xam nañ lan ngeen di def <laughs> loolu foog ngeen xam ko mais dossier dossier dossier bi yow nan ngay ñëwee nga ne nëbb say moroomu député ne leen duñ joxe duñ joxe kii fond de dossier bi ñëw leen sama bureau ngeen consulter ko pour lan Khalifa Sall ba ñuy joxe joxe wuñ <laughs> loolu dégg naa. léegi Abdou Bara Dolly wax gis nga nag dañ leen wan rek ñu liir mais. kenn doxu leen dañ leen wan ñu liir kenn doxu leen parce que. c'est comme ça Papa Ngagne. Euh, kii Papa Ngagne Papa Ngagne. c'est uh-huh. gis nga. Euh, kii xam na nga terminer foofu. ni ñu ni gis nga ni ñu tàmbalee. waaw ni ñu tàmbalee ci convocation gu lajj gi. Mm-hmm. jóge ci commission d'enquête parlementaire ci tarfatal ay ni ci lu gaaw. dugal ci seeni lajj ñu ñëw taxaw ne lettre bi ñu jox parce que réquisitoire du lettre ndax bu ñu demandé levée immunité parlementaire bu ko procureur santé procureur général mu wax ko garde des sceaux lettre yi muy yóbbu lettre de transmission la. d'accord mais la base de poursuites c'est le réquisitoire introductif. te réquisitoire boobu noonu. ala xam lañ ci bind yéen assemblée ngeen taxaw tey ni ala xam mooy Ousmane ko loolu ngeen def te nag procédure bi nga xam ne jaarul yoon ci levée immunité parlementaire boobu te yoon may say collègue député def recours parce que wax nga ni xalifa Sall xam da ngay da ngay wax droit jurisprudence ci source droit la bokk comme comme kaaw xalifa Sall ni ñu ko maye woon mu def recours donte ni conseil constitutionnel déclaré na incompé incompétent euh, incompétent ñu ñëwaat yoon mayaat la ñu mën a def seen recours te mu suspendre convocation bi nga xam ne juge bi jox na ko loolu ngeen doon bañ merci beaucoup donc jurisprudence boobu euh, lu ñu war a mën a nangul Ousmane Sonko